naqar ak tiis la askan wi yewoo ci diwaanu Kër Massar daal di yeewoo tey ñaari xale yu góor ñoo daal di ñàkk seen bakkan kenn ki moo daal di dugg ci poos keneen ki ñëw ngir daal di koy dimbali moom itam mu daal di koy fekk ji ñoom ñaar ñëpp ñu daal di fay jaaree nag daal di ñàkk seen bakkan loolu nag mi ngi xewee fi nga xamante ne nii mooy ci diwaanu Kër Massar tey jii yemoo ak fukki fan ci weeru juillet. ci fi nga xamante ne nii moo di ci diwaanu kaas ba xamaguñu nag eh, ginnaaw information yi ñu jotagum ana ci yan condition rek la ñu daal di duggee ci boobule poos waaye nag ñuy ñaan buur bi dara tewul yàlla na yàlla yokk seen leer yokk itam seen yërmande xaare leen ci aljanay firdawsi nuzulan